accident bu doywaar bu am fii ci Pikine Technopole mu nekk accident boo xam ne benn Ndiaga Ndiaye bu xalango renversé wu ci li nga xam ne mooy autoroute à péage bi danañ ci dikk léegi waaye balaa loolu lépp nag am njàngat mi ni indi mooy maanaam di pareloo li leen di sëfoor si yaakaar naan ci foofee ci Technopole ak yeneen gox yi fasantikoo yi nekk ci réew mi oto yi di daw ndànk di tourner ndànk bu ko defee ñu xam ne aw askan ñoo nekk ci suuf ci li nga xam ne daanaka mooy loole mu nekk lu am solo nag di parenthèse bu ñu leen bëgg a andil accident baa ngoogu ngeen gis oto bi ni mu euh, sëppal jaleñe loolee mi ngi am fii benn njaganjaay boo xam ne moo renversé wu euh, ci autoroute à péage euh, Pikine bi di Technopole loole nag daanaka accident ba euh, yàlla na jëm kanam ndax amul benn nit boo xam ne ñàkk na si ba kanam loole kon daanaka na jëm kanam bu ko defee blessé yi yóbbu nañ leen hôpital ñi nga xam ne ñoo fa blessé ñeneen ci des nag yaakaar naa ne dem nañ ci seen i kër loole tamit nekk loo xam ne luñ mën a bàyyi xel la tey ñaan maanaam jàmm joojee sax dàkk baneen bi ci des mooy maanaam oto yi ak njaganjaay ak li nga xam ne mooy oto mag yi nga xam ne ñoo gën a ndaw yeneen oto ñuy bàyyi xel bu baax a baax ni tali bi xatul xol yi na gën a doon benn Sénégal réew la moo xam ne war a a wucc ayib waaye daw bi ñu koy def ndànk dal ndànk mu am solo bu baax a baax loolee dekk xibaar bu wadd nag buñ leen di indil ngir dalal uh, seen xel bu baax a baax uh, yeneen information ci kanam ñu ngi sàkku ci yow nga abonné ci seen bii di Aladji Malick TV tamit nga abonné ci La Vérité TV foofee uh, vidéo na a gudd lool loolee ci commentaire vidéo bi ci youtube bi bu ko defee boo demee ci youtube commentaire yi fa fekk lien ba dem bu dee tiktok na nga dem mën ngaa jaar noonu dem ci la tv abonné dikkaat